alaa wallaahi aleykum waaw sax la nee def maa xam yeneen dafa fii noom jeexal na takk takk takk takk takk nag moom jamono yi moom yàlla min tiim xam ne ni njàllob seen ndeysaanu na laa ilaha illa saa ngénte la saa ngénte la sa la personnalité yi fa sax de fii laay laaj man waaw saa la rek bu coppi personnalité bi maanaam ndafa li mu doon raasaatu mooy sidna Usmaan ñëw fa wala mu yable fa parce que ndafa ci dialogue am jàpp na ni bu koy wax sidna Usmaan ñëw fa wala mu yable fa moo tax waaye njalak su euh, maanaam dafa organiser te si dansement teew fa maanaam jëppewu ko jalak lu dul jalak su ndeysaanu loolu moo waraloon waaw tabarkàlla mu mu mere woon lool Barthélémy Dias mii ba nga ko fi fenee mooy jamono bi mu naan ko tëggal ab jarug dinaa fexe ba sama doomu doy pour ñëw kala dafa def effort xëtër xëtër yi tabarkàlla loolu mu daj ko waaw ba taxawal ci njalugam su ndeysaanu soo suñu ko daan naan gëmul dóor te mujj ci am déception lool waaw ndax dafa jàpp ne si dansement dana fa teew si dansement ni ko ba ma gisee sab sab jalug waaw ah, wuutu wuutal nga gis foofu Bob Marley waaw ah, sa waay ndeysaan nag daal di xoolu bokk juróom-ñaari golom waaw ah, depuis boobu ba jëmmi jamono yi daanaka déggatoo ko mu am ak mu am ak benn relation bu rafet ak Barthélémy Dias gis naa bi sax fexe na bañ bañ bañ ko bañ ko naam ne ko fi ndax Barthélémy da ko da ko fenoon waaye jarog bi fii ni ni moom loolu la ci doon raasaatu xay na waaye waxuma la dara waaye ndeysaanu gi mooy Sidna Ousmane téewut yëbalu yëbliwut deuxièmement ba tey mooy maanaam opposition bi kenn jaru fa ñii fi jot a ñëw nañ nag dégg naa ñu ne moom daanaka ñu fi yëkkati kàddu yëpp nee nañ ko nag defal la conseil constitutionnel mu li wax waaw jàppal dat bi ci dem gën ah ñu daal benn pape géwél ah tawarkal ak xoobakat mooy ah ci ñun ndeysaan ñu ñoo fi ay nan dàgga nan dàgga sa sa dàgga naan ay xooba li simbalee moom <laughs> wallahi ndeysaan li ak ndeysaanu la waaw loolu tax gis nga gis nga war baaxut wallahi lancim war ak i tappale baaxut gis nga li borom bi tabaraka wa taala ni inna allaha laa yahdi kaydal xaaidin wallahi laasim wor boo ko defee même boo njëkkee mujj gu rafet xamal ni nihayatul mataaf ba munoo am mujj gu rafet ci benn anam ndafa perte na dis perte na lestek parce que au mois bu demoon élection ak ni mu njëkkoon a jàppee élection yi bañ a reporté bañ a def dara wallahi am na benn honneur boo xam ne dana ko am boo xam ne même ku Sénégal joxul àddina bi danañ ko jox mais sal salfaañi na nasaxal na maanaam écrasé na démocratie bu Sénégal te a pare tey maanaam lu démocratie bi yàqu li deram moom yàqu mu ko ëpp téeméeri junni yoon te ba pare tey liñ ci doon raasat jàpp ni dana ko ci am moo jàpp ni kat am dese benn kattan wala doole wala notel bu mën a noot askan wi ba yeggale ay bëgg-bëggam loolu xam ne ni fii ni ñàkk na ko définitivement ak lu maanaam dañuy jàpp daatu élection yi ci dim gën a gaawee bu ñaari bi te daan dem élection ki war a gàñ réew mi dana ko gañ mu jaar ci porte boo xam ne jaar ci pukos pukos ba sax laaya pukos ba pukos parce que porte boobu mu noppi ni caa a jaar fenêtre ba noppi ni caa mën a jaar xanaa as pukos su ndaw a ndaw rek suñ mbéysaanu koo xam ne nii daanaka da ngay boole ñàkk dis ñàkk lës loolu tax gis nga wolof dafay wax lu am solo ku iñaane sa ndono saw deewin ñaaw sa ndoona nag nekkul ne yaa koy tànn mais ndoonam li lay ta li lay ki lay wuutu ci tànneefu yàlla ci lay amee maalikal mulki tuutil mulka man tasha wa tansiul mulka mimman tasha dafa dëkk fi woon a jàng kenn pala gëri fi woon a placé wu kenn pour yor réew mi ànd ak loolu lépp ñañu foogoon ci moom Idriss Seck ak ñoom euh, Moustapha Niasse Tanor Dieng yàlla day leen a feggal fële jël ndafu mu wutu Ablaye Wade moom nag mu taxaw ni ala mikk ki ma war a wuutu du ma wuutu ah la am na ci loo